gan gi docteur Abdou sana ko ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay bu baax. ñu lay gërëm aussi sa Mm-hmm. sa auditeur ak sa auditrice yi. jërëjëf ñu lay gërëm bu baax ci teel a yeew bi ànd ak ñun tey docteur ni ma ko waxee sànq du luñ lay xibaar ndax euh, ba bés bu jot ñu dégg euh, yéenekaay yi eggee ñu ay euh, viol yoo xam ni faat bakkan moo cay topp loola nag docteur ci ay tout tànk la doon dal waaye bi ci mujjee ëlëm ñu bari mooy gone gu jigéen gu am ñaafkat fukki ak juróom-ñaar ca Louga nekkatul xale yow loola noo ko jàngatee mbir mi ni mu amee doole tey na fi gaa ci société bi waaye tey moom dafa gën a ëppi loxo. waaw c'est vrai que soo seetoo bu baax mbirum bi ñuy waxtaanee tey nii. Mm. xëy na amaana am na ay yooni yoon yoo xam ne nii euh, may nga ma opportunité ci kàddu goom a jox. Mm-hmm. ñu wax ci waxati ci waxati ci waxati ci. mais xëy na euh, su fekkee ni aussi dañ koy bëgg a leeral ci wàllu doxalin ak mm-hmm. tëralin dañuy wax rek ne c'est parce que mbir mi ñuy waxtaanee tey jii dafa tëddee ci fànn yu bëri yoo xam ne ni mën naa ñëwee nu ne. Mm-hmm. donc léeg-léeg su fekk day baax quand même ñiy déglu ñu bañ a yaakaar ni lu ñuy wax ak a waxaat la non saa su ne soo ciy wax. mi ngi tëddee ci euh, xëy na fànn yu mu lay feeñoo. Mhm. bii paa nag mooy comme ni nga ko waxee léegi ci nataal bi nga joxe mooy dafa dafa dafa am ay beneen façon yu ñu gis fan yi mhm. yoo xam ne nii aussi mën nañ ko ci jàngate alors su fekkee ni nag ci loolu euh, dañ ko régler ci wàllu doxalin ak tëralin ñu koy wax méthodologie ba pare liñ ci mën a wax par rapport ak laaj bi nga laaj mooy ñun jaaxaluñu en tant que spécialiste. Mhm. pourquoi parce que dañuy fàtte ni nit. ci niñ ko ci niñ ko bindee dañ ko bind ci deret bind ko ci suux euh, bind ko aussi muy nekk koo xam ne nii euh, dafa am un peu li ñuy wax sensibilité trop trop trop trop par rapport ak bànneexu bakkanam hmm. par par rapport ak bëgg-bëggam par rapport ak li ko neex loolu nag suñu borom defal ñu aussi beneen mbaax boo xam ne daf ñoo jox xel mu war a tàggat loolu di am saa su nekk bu bëggee màmm ba mel ni fas bu màmm xel bi moom moo koy tàggat am fu mu ko am fu ko yemale. Mm-hmm. waaye daf dañu dañu seetlu ni suñuy observer société bi léegi dafa on comme l'impression euh, xel moomu nga xam ne ni suñu borom daf ñu ko baaxee woon. pour mu ñuy tàggatal ba waruñoo mën a jëm ci yenn travers yi waruñoo mën a màmm ba euh, xëy na nekk suñuy jaamu bakkan ak suñu bëgg-bëgg. Mm-hmm. malheureusement ci biir askan wi léegi dafa mel ni xel moomu daf ñoo rëcc ce qui fait dañuy jugee ci dimension wu nite pour dellu ci dimension wu bàyyi ma bàyyi ma nag su demee ba gis li mu bëgg bakkanam rek lay gis ak bëgg-bëggam après lay soog a comp bàyyi ma sax du comprendre ñun nit ñun après ñun ñooy gis ni waa kii nan la mën a defee nii mais c'est que bi ñun peut-être que rëcc nañu mais xamuñu ni bi mu koy def du nite ko def mais ab bàyyi maa ko def donc loolu la ñuy wax ci ñun dépersonnation dafa mel ni am na sax waykat bu ma dégg mu naan li ma yitteel mooy nga nite mais li mu wax sax xamu ko aujourd'hui dañu war a interroger wu ci sunu nekk nit ak ci sunu nite mm-hmm. dimension bu nekk ci biir kër ga ci bus yi ci université yi ci mosquée yi ci église yi ci armée bi partout war nañu interroger ni est-ce que ñun au Sénégal ñu ngi ci dimension wu nite wala ñu ngi ci dimension wu baay ma ñun spécialiste nag boo koy xool pour que man mi nga xam ne nii sama xel dafa wàcc màcc également ci loolu man sama jàngat yëpp daf ma jox ni rendruñ ci compte mais davantage ñu ngi jóge ci nite di dem ci bàyyi ma te ci suñ ci doxul nag ay tànk jéego dina dem ba yu mel nii dafay mel ni rek nga génn ci boutique bi jënd tàngal wala nga jënd gerte caaf ci mbedd mi parce que loolu moo dal par exemple rew mu mel ni États-Unis du du saa yoo yeewoo bis bu nekk gis nga ko ñu rey wala ko ñu jàmm wala ko ñu wala ainsi de suite te su boobaa ampleur bi bu fa eggee criminologie bi egg foofu noonu ak criminalité bi euh, day jéggi dayoo donc war nañu def taxaw seetlu nag euh, lépp loo xam ni mun nañ koo waxtaane parce que bon man loolu mooy sama paradoxe mooy paradoxe bi ci man aussi day am journaliste yi wax ci ñu invité spécialiste mm-hmm. après buñ ci waxee semaine boobu ñëpp noppiwaat xaaraat encore ba mu amaat beneen cas ñu wax ci donc taxaw seetlu recherche yaa ngi fi spécialiste yaa ngi fi ni ñuy waxee ci problème mu emploi bala nga naan naam da nga fay nekk réew mi am na problème mu insécurité boo xam ne nii bon il faut ñu il faut dox ci taxaw seetlu bon beneen bi ci des te ma fàtte ko woon wax aussi ci nasaraan. Mm-hmm. mooy dafa am dimension boo xam ne il faut ñu nangu ko. force de défense et de sécurité mënuñu ko teg ci derrière sénégalais yëpp mais dafa am benn réalité psychosociale bu fi nekk mooy ñun xamanteetuñu ñun. ñun dañoo bëgg dëkk ba pare te xamanteetuñu xamanteetuñu mooy lan. Hmm. mooy da ngay gis koo xam ne nii kenn xamul fu mu jugee mu ñëw dëkk si benn appartement xamuñu lu muy def. xamuñu lu muy jigee xamuñu nationalité am xamuñu daraam. Hmm. moom daal ñëw na di ñu romb léeg-léeg sax mu changé turam changé santam. ka ko luyee xaalis ba rek ko yitteel. xa alors ki ko luyee xaalis bi moo ko yitteel hmm. beneen bi ci des mooy ñun dañu amoon euh, habitude di wax ci suñu tradition yi noonu dëkk goo gis ak mbokk ko lal mm-hmm. mais dañuy dëkk ñoo xam ne ñoom xamuñu ñun chaque jour ñu croiser quelqu'un ci suñu appartement yi ñoom xamuñu ñu ñun xamuñu leen mm-hmm. léeg-léeg sax damay damay faral di ree léeg-léeg benn waaye nga romb ko ngeen dëkkandoo mu jékki-jékki xëy suba gis la télé rek dana la mais yow laa gisoon ci télé bi ça veut moom xamul woon sax bi muy dëkk ak yow yow yaay kan mm-hmm. de la même nga réer ko yow moom tamit noonu la la réeree. Mhm. waaw léegi su ñu amee ci askan bu mel noonu nag mais genre événement yi waruñoo mën a rëcc te bu bu nekkee euh, réewu réewu taax yi. Mhm. saa yu ñu gisee koo xam ne ci bees la ci ñoom citoyen yi ci boppam ñoo dem signalé ko am na lu ñu gis. am na ku ñu gis mu yéeg ak wàcc xamuñu fu mu jugee bon suñu la da ngay jékki-jékki tamit police intervenir ñu laaj la nga ne non man euh, immigration Canada laa jógee wala mhm. Québec maa ngi fi depuis tel endroit tel endroit sénégalais crise citoyenne boobu nag moo fi am tout dañ naan ah loolu na ko na ko na ko nguur wala wala wala wala état bi wala police bi wala gendarmerie bi réglal bo loolu tant que ñu ngi ciy dugg lu mel ni aussi duñ ci guuta gi duñ ci teel a génn te mm-hmm. généralement bugguma ko woon wax parce que c'est sensible aussi mm-hmm. bon euh, porosité frontière yi aidant Sénégal dañoo nekk pays hospitalier boo xam ne nii ku ñëw ñu ñu ñu fat la yaatal la benn exemple rek laa si joxe je crois que Toumba Diakité la tudd bu dëkk bi dëkk Guinée ñëw na mm-hmm. fii installé wu Almadi pendant un bon bout de temps di dugg si mosquée yi di jëflanteeg nit ñi te kenn xamul woon ni moom la il a fallu l'intervention de l'Interpol et de ñu soog ko mën a dégg loolu nag koñ bu nekk suñu suñu euh, jàngataatul mbir bi ba saa yu ñu gisee koo xam ne dafa am ay comportement yu bizarre wala xamuñu ko ñu jéem a taxaw ay jéego ñun waa quartier bi ak askan wi ba xam moom mooy kan duñu dugg duñu duñu duñu jug ci ci ci euh, considération yu mel nii. Mm-hmm. ñu ñëwaat docteur ci viol yi nga xam ni des fois ay bakkan da ci rot euh, yooye ñu ci ci bari suñuy jege ñaale koy def nekkul ñu jóge feneen. Euh, alors yooyu ña koy def ndax dañu leen mën a jàppee ñu feebar ñi nga xam ne mënatuñu dem ba maîtriser seen bopp. souvent dañuy wax ne sax dañu feebar wala dañu topp rek seen bànneexu bakkan ak itam lan moo ci responsabilité wu société bi rawatina ak famille yi. waa responsabilité bu bëri xam nga léeg-léeg dañuy wax bànne topp sa bànneexu bakkan le simple fait de topp sa bànneexu bakkan déséquilibre la c'est-à-dire ñun ñi ñëpp en tant que universitaire ay docteur ay journaliste ñu ngi solo ba rafet di xëy di dem mais kenn ku nekk si ñun am nañ problème pour maîtriser suñuy pulsion d'ailleurs moo tax chaque jour bu benn événement génnee ci ci ci réseaux sociaux yi ci télé yi wala ci médias yi ñëpp waaru mm-hmm. mais il faut ñu xam ne en vérité nekk ñoŋuñu seen xel ñoŋul comme yow nit amul benn nit bu yeewu ci kaw suuf mu ne man sama xel dafa mat ci kaw ba ci suuf ñun ñëpp mhm. dañoo toog ci ay rëq-rëq yoo xam ne nii moom lañ ñu defaree alaakulli loolu mooy suñ ay mhm. matadi boobu ñun moom lañ ñu sàkkee waaw léegi nag bu fekkee ne dañ la sàkkee matadi te comme ni nga ko waxee ñun amuñu benn euh, jëfalin ak doxalin boo xam ne nii daf ñuy permettre ñuy saytu suñu xel ak suñu biir xel mais mun nañu poser ay actes yoo xam ne dañuy jàpp ni ah dafa topp bànneexu bakkanam mais bala ñuy ñëw ci responsabilité lan moo mën a dimbale nit boobu waaw xam nga équilibre boobu pour nga am ko d'abord dafa yombul parce que dañuy wax euh, réer xam nga ki ki ñàkk a jàng dañ naan ay réer la. Mm. ki jàng xam nga ñi jàng diine. Mm. jàng alxuraan dem ci église yi ñu jàngal leen foofa dem. wax nañ la ay notion wu science sociale wax la lan mooy nafs wax la lan mooy bakkan wax la expliquer lay affaire yoo xam ne mm-hmm. boo ci gisee loo xam ne nii xëy na am na leen lu ci sooxe mën nga dinañ la wan ay matuwaay ñoom ci diine wala ci école wala ci voilà ci formation nan ngay jaar ba mën a mm-hmm. def ce travail là sur toi-même am na koo xam ne jàngul. Mm-hmm. ki jàngul nag moom moom véritablement dafa réer kooku mënoo mm-hmm. ko mënoo ko mënoo ko imputer ay responsabilités de quoi que ce soit c'est que en vérité il faudrait que Sénégal gii ñu xam ne sciences sociale yi ñu bëgg ko ñu bañ ko réew mu développé ba ñooy coow ci kaw suuf mm-hmm. ci sciences sociales yi nga jaar je vous rappelle la révolution industrielle réew tubaab bi tolloon nañ comme ñun mais bi ñu ñëwee def révolution industrielle dañoo jël sciences sociales teg leen ci kaw dama ni ñun amuñu taxawaay boo xam ne ni ñuy demee suñu bëñ metti ñu gis dentiste. Mm-hmm. suñu bët metti ñu gis ophtalmologue. suñu biir metti ñu dem fenn euh, ñu ñu am problème obstétrique dem ci sage-femme. Mm-hmm. mais c'est pas le même réflexe boo xamee luy jiixi jaaxa ci sa biir ci sa biir loolu mooy intériorité. sa biir mm-hmm. biir. te mënoo koo wax kenn amoo foo ko waxee. waa léegi bis boo yeewoo nag loolu di gën a ngand di gën a ngand di gën a ngand ba toll foo xam ne nii bis bu lay xiirtal ci nga ci nga jëf. jëf bi ngay jëf musiba la nekk ñun ñëpp ñu toog di ngaan mm. donc daa ça voudra dire que kooku en fait victime la. Mm. su teeloon a xam li koy musal ba du def loolu xëy na du ko def. foofu la responsabilité état di ñëwee peut yëkkati euh, sciences sociales yooyu ngay wax. mel ni psychologue yi ngeen doon sociologue yi ak anthropologue yi <laughs> mais mais mais absolument non seulement yëkkati ko pas sax ci joxe mais surtout ci formation bi. Mm. au niveau universitaire am na c'est vrai que ñu ngi ciy dox ay jéego am na ay bànqaas yu ni ISEP léegi am na fa benn département bu tudd contact maanaam dafay saytu lépp loo xam ni dafay nekk doxalinu nit doomu aadama ak moroomam ci hôpital yi ci liggéeyukaay yi ci banques yi partout pour xool lan moo ciy sooxe ñu mën a ñoom di la guider di la encadrer di la wax yoon mii nga war a aw donc loolu nag lan lay suñu amoon davantage ay centre d'adolescence d'écoute maanaam boo nekkee waxambaane nga nekk xale bu góor wala nga nekk xale bu jigéen am yu lay jaaxal ci sa comportement xamoo luy pulsion xamoo luy sentiment xamoo luy désir peut-être que ci ci endroit yooyu noonu mën war nga faa mën a dem ba ñu déglu la pour ñu gunge la gis naa nag ci yenn projet yu bees yi ma gis am na nañ ko tuddee de maison du citoyen su ma hmm. juumul waaw jàpp naa ne ci biir maison citoyen yooyu war nañ fa installer ay département yoo xam ne ni c'est des centres d'écoute et de guidage alors ci centre d'écoute et de guidage yooyu noonu war nañ fa mën a teg ay spécialistes yoo xam ne nii amul mag amul xale amul ndaw bépp citoyen boo amee lu la jaaxal te ñoom ñu former leen ci mën ngaa ñëw diisoog ñoom ñu mën laa wax fan ngay teg sa tànk ak fan ngay fan ngay jaar donc beneen bi ci des wax nga ko. Mm-hmm. mooy aussi il faut pas que ñu di poser ay actes rek ñu ne leen ñoom dañoo bon ñun suñu biir askan ñun suñuy njaboot yi ñun ñoo leen sànni ba bëggatuñ leen parce que da ciy am ñoo xam ne nii dañuy dem ba yow nga jàpp ni euh, sa kaaraange nekk ak ñoom. wóorutul loolu délinquants yi surtout la gën a concerné. waaw surtout surtout non mm. surtout concerné na délinquants yi mais mm. man je je considère que ñiy aussi. waaw <laughs> mais même ñooñu aussi c'est des délinquants sexuels. Mm-hmm. ak loo ci munti dégg. waaw léegi nag xam nga surtout nag ci mbir yooyu xam nga Sénégal fii mbiru rapport entre góor ak jigéen kenn mm-hmm. du ko waxtaane mm-hmm. am na koo xam ni da am ay jafe-jafe yu metti di ko dund. benn exemple laay jox mais fan la ñuy teg ci ki nga xam ni dafa am juróom benn fukki at ak juróom. société mayu ko mu am jabar parce que dañ ne ko jabar balaa nga koy mat doo ko mat da nga koy mën. encore amul moom emploi amul formation liggéeyul mu nekk ci biir koñ mu am ñeen fukki at juróom fukki at juróom benn fukki at mais ñëpp xam nit ak ni ko yàlla tënkee. Mhm. wala nga bëgg a bàyyi ko ci koñ. ba pare mu am foofu ay xale yu ndaw yu am 15 ans yu am 14 ans yu am 8 ans yu am. Mhm. mais su su amee ay cas de pédophilie société bee ko def. parce que ni mu tëggee boppam mais joxul ñooñu benn possibilité aussi ñu am mm-hmm. nan la ñuy xamee ak nan la ñuy def ba mun a matalee seen nekkinu yarim ak ak yaram ak seen nekkinu xel. Mm-hmm. malheureusement cas yooyu dañ koy gis ci société nga ni kii ñaata at la am ne am na ñaata at ngeen mës na am jawar ñu ne déedéet ñëpp di dund ak ñoom. Mm-hmm. mais après ñu bàyyi suñuy doom ñooñu ñoo leen di yónni jëndal ma tabac jëndal ma. ñun sax ñu yónni <laughs> suñuy doom ci kër bu yàqu bu ñu gis. te mën fa te xale bu ndaw nga xam ne mën nga koo nax parce que xelam màccagul encore mm. mais suñ ko fa yóbboo luñ ko def moom am na ci responsabilité mais askan wi am na ci responsabilité. Mm-hmm. docteur léegi euh, njaboot yi famille yi euh, ñu ñu dëxëñ ci ñi nga xam ne ñooy def euh, acte ak agression yeeg yëpp famille yi lan moo ci seen responsabilité tey. mooy cellule de base ci gën a nekk seen responsabilité mooy famille ci boppam dafa nërmeelu. Mm-hmm. lépp li ñuy wax njaboot ak mbokkoo mbokk il faut que ñu nangu biir Sénégal ñu taxaw waxtaan ñu xam ni mbokk léegi taxatoo ñu naan mbokk gis nga bu njëkkaan seen yaay bu déggee jarbaatam dafa commencé tux yàmba dafa commencé jaar fii da ci xar tànk tubayam mais léegi mbokk boo gis boo amee jafe-jafe kan mooy taxaw personne te léeg-léeg mbokk bi ñuy wax des fois da ngay nekk orphelin sa papa du fi nekk sa yaay du fi nekk mais am nga bàjjen am nga cousin am nga mm-hmm. mais ñooñu léegi dañoo jugee ci société boo xam ni dañoo nekk ay mbokk yu mbokk yàlla ci société boo xam ne bopp sa bopp la hmm. waaw bopp sa bopp nag nit parce que nit koo gis mu posé benn acte ci njaboot la jóge ak ci kër hmm. bu ñu defoon la ñu war a def boobu bu tegaloo ci yoon yoo xam ne nekk na yoon bu safaan ñu yóbbu ko ci fi nga xam ne nii foofu la mbaxana doonee benn ñu jàpp ko ñu continuer di ko yóbbul añ di continuer di waxtaan ak moom di continuer aussi di taxaw ci lieux carcéraux yooyu noonu ñu mën a di tàggat di gunge Euh, njaboot gi nga xam ne ay njabootu Sénégal la boo xam ne dañoo am lu dox seen diggante ak askan wi ci lu ñu warul def. Mm. mais ñu mën a dabuwaat seen i rëq-rëq ñu mottali ko ba suñu génnaatee ñu nekk ay exemple. rôle boobu nag dafa mel ni dafa sooxe tey ci prison yi. dafa sooxe carrément prison dañ ko jàppee rek say mbir gën a doy waar sax ñu ci bari. voilà enfermement lañ ko jàppee. dañ ko mm. jël loolu la ñuy wax ñun la mort sociale da nga fay dugg ñu rey sa bépp nité. ba def la bàyyi ma wala monstre boo xam ne ni yow soo génnee tu vas prendre ce qu'on appelle la revanche sociale. Mm-hmm. mooy day mel ni askan wi dañ laa rey léegi nga bëgg nag jël sa revanche ci ñoom mooy képp ku fekk muy dox ak xaalis ak pochette ak oto ak truc su ma ko jekkoo li ma dund fële ci biir kaso ba. Mm-hmm. dinaa la dund loolu ko gën a metti yow ci biir askan kon récidiviste yi yow noonu nga leen comprendre maanaam ñiy def di defaat mel ni ki faat euh, xale bu jigéen mm-hmm. leen dugal. foofu mooy euh, peut-être endroit bi gën a privilégié si ñoom pour ñu retrouver fa parce que même soo leen génnewaatee ci société bi kooku bi ñu ko génnee. Mm-hmm. fekkuñu ko ci kër ci mbedd lañ ko fekk. Mm-hmm. mais kon da amaana xëy na moom mu nekk kaso sax di nekk kooku di gis ay xaritam di bëree di entraîner. Mm-hmm. di di di di def tuuru stade bi di di di di di di déconner di reetaan mu foofu la dundam gën a neexee quelque part que ci biti te loolu c'est pas de sa faute c'est que mécanisme yi nga xam ne dañ koy teg pour di gunge détenu yi. mais loolu dafa nekk ay mécanisme rey nit lu muy garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw soo ko defee ñu ne la tëj nañ la vingt ans ci biir mm-hmm. vingt ans yi dañ la war a jàngal bu vingt ans yi matee soo génnee nga nekkaat nit mm-hmm. foofu nag j'ai comme l'impression que dëglu bi ñu war a dëglu ñi nga xam ne ñooy détenu gunge bi ñu leen war a gunge jàngal leen métier maraîchage menuiserie di leen defal ay cours théologie islam catholicisme di leen defal ay cours aussi développement personnel ñuy xamaat seen boppu di leen jox ay cours euh, sa écoute ak ak ak débriefing ñuy wax ni ñoom lan la ñuy réccu ak lan la ñuy regretter ba suñu génnee amaana ñoom ñooy gën a ñoŋ sax ñi nekkoon ci biti société bi loolu nag amul. amul ku leen di indil añ amul ku leen di déglu mayu ñu leen possibilité suñu génnee ñu amaat jabar amaat liggéey mais kooku da nga ray socialement que moom su génnaatee foncièrement xam na ni donc foofu nekkatul liyam il s'y retrouve plus munul intégré wu munul réinsérer waaw léegi day posé waat benn forfait gars yi dala waat ko kaso ba suy dugg dara lu muy perte waaw amul dara lu muy perte ñun ñoo am lu ñuy perte ñun mm. askan wi moo tax nag léegi dañoo war a interroger waat encore mécanisme yooyu ñu def de telle sorte que kaso yi ñu xam ni beneen sorte de prolongement de la société la mm-hmm. li nga xam ne ñun mënuñu ko ñoom ñoo ko war a mottali mais du dóore rek du tëj nit ñi rek du teg leen ci lëndëm du jox leen ay lekk gu bon. Hmm. non mooy waxaat waxtaan ak ñoom parce que ñu xam ne en fait ñoom rëq-rëq bi leen dab en tant que nit ku ku matadi. Hmm. même rëq-rëq bi ñun aussi ñun ñu nekk ci biti mun nañ dab ñoom ñooñu nga xam ne souvent day nekk ay garde pénitentiaire wala ñu nekk juge wala ñu nekk gendarme balaa ñu fiy jugee ci seen dundu rëq-rëq bu mel noonu mun na leen dab loolu nag la occidentaux yi réussir kaso yi à la limite fay cet bi nga fay fekk yëre yi nga fay sol lekk bi nga fay nekk. déglu bi ñu lay déglu day am ay église ngay julli di dabu sa diine. Mhm. ñun loolu fii nii effectivement dimension humaine boobu kaso yi amuñu ko. Mhm. parce que amuñu moyens yi te loolu nag du waa service pénitentiaire yi ñoom ñoo ko ñoom ñoo fautif de non état moom moo war a jël alal ju doy recruter ay psychologue recruter ay anthropologue ay psychologue mhm. ay guide ñu nekk ci biir kaso yi di mën a déglu nit ñi di leen mën a orienter di leen mën a teg ci yoon bu baax bi. nga xam ne suñu génnaatee. ñun suñu askan du ñu nekk en danger parce que dañuy nekk nit ñoo xam ne nii dañuy maasaloowaat ak askan bi ba léeg-léeg sax di nga romb nit doo mës a xam ne sax dugg na sa su la ko waxul parce que imam la parce que ingénieur la parce que après jàngat na avocat la mais même jàng bi da ngay gis koo xam ne doon jàng fii nekk élève ñu tëj ko mais mayuñu ko possibilité mu nekk ci biir di jàng dem def candidat libre candidature mm-hmm. waxtu bi dab nañu waaye ñu évoqué très rapidement beneen taxaw seetlu boo xam ni am nañu ko muy tey nit ñi euh, coxor nu mu duggee ci seen biir ba mel ni lu leen ëpp doole gis nañu Ousmane Sonko weekend bi bi mu defee malaise ca Bignona yenn commentaires yi ñenn dem ba naan mawti waru la woon mooy gis nañ ko ko Aliou Sall aussi rakku président de République bi mu fi amee Covid 19 ñu bari yegg nañu ci ñaanal ko mu bañ caa jug loola nan la Sénégal def ba yegg ci ñi nga xam ne xëy na yërmandeeg yu ni mel moo ñu doon. waaw mais parce que xam nga nu Sénégal def ba ye ba ba yegg loolu ñaari exemple yi nga ma jox fii yëpp si ay dima ay politique lay am xam nga waxoo ma ni ci confrérie la am xam nga waxoo ma ni ci association la am xam nga waxoo ma ni ci je sais pas moi ci milieu presse bi la am déedéet da nga mën a ci parti politique mais parti politique yi dañoo jàpp ni ñoom xanaa ñoom dañuy fàtte ni parti politique du wut rek nguur ak conserver nguur mais parti politique tàggat nit parti politique defar nit tabax nit euh, amaana aussi dafa nekk ci mission bi te loolu ñu ngi koy tabaxee ci école parti yi mm. Abdoulaye Wade dafi daan jotee ak Abdou Diouf Senghor jotee fekk Lamine Gueye ak Mamadou Dia je me mm. rappelle bi ñu laajee euh, Mamadou Dia ne ko Senghor wàññeeku na ah mais amul benn wax bu ñaaw ak lim ko teg yëpp boo xam ne mm-hmm. dégg nga mu wax ko mm-hmm. donc loolu nag moom mooy ñooñu ay gentleman la ñoon ay ay ay ay ay nit la ñoon mais léegi parti yi li leen intéressé rek mooy élection mm-hmm. mooy marche mooy grève du ñu tabax nit te tabax nit boobu mi ngi commencé ci jàngal ko ni su may jëflante ak sama morom boo xam ne bokkuñu gis-gis ak lu jaamaarloo bi tar tar tar tar ku nekk mën naa wax ne d'accorduma ak sa morom mais dañ koy def ci benn déggoo déggoo bi mooy li ñuy def yëpp dañ koy def ci cadre nit mooy mun nañu wax ci ay idées mais duñu wax ci ay personnes. Hmm. mais léegi politique bi yëpp dañuy jéggi idées yi ak projets yi ak programme yi di wax sax ci nit sa yaay moo fi defoon sa papa hmm. moo fi defoon ba egsi nag ci boo deewee sax ñu ne ñoom te dama yaakaar ni nag hmm. nit sa noonu lu mu rëy rëy rëy rëy koo mën a yéene xanaa te ñaari exemple la ñuy jël ci catholique yi ak ci musulman yi. Jésus daf ne la bis boo ma mbéjee ma jox la beneen lex xam nga kooku kon wane na humanité. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ la wax ne la même ki ko doon tegal dëkk ci yoonam bi mu demee ba benn bis gisu ko mhm. ñu ne ko dafa feebar dafa ñëw seet si ko mais loolu doon na ay exemple donc ce qui fait que ñun on a de grands responsables politiques mais on pas de leader politique parce que mhm. leader mooy tàggat njabootam ne ak loo mën a nekk si jàmmaarloo mais teg ko ci cadre nit mhm. ak ci jëflante nit foofu nag la parti politique yi nërmeloo leen intéressé c'est des considérations politiques mais te xamuñu ni politique ak ki koy def yëpp ci askan lañ jógee mhm. donc vertu ak valeur u askan wooyu da ko war a perpétuer ci say futurs militants mais on forme des on forme simplement des militants et des et des et des fan clubs mhm. des passionnés même à la limite des mhm. orthodoxes un peu mais malheureusement on ne forme pas des citoyens policiers mooy koo xam ne nii man gëm naa politique bëgg naa ko mais dama koy def nag ci ay cadre yoo xam ne cadre nit la loolu yëpp yow yaa ngi wax ci histoire u yéenante ay dee mais loolu aussi mooy pousse nit ba ci même su yore nguur mu koy exercer comme il veut soo ko joxee deniers publics aussi mu fàtte askan wi ah. moom muy defar boppam boo ko mm-hmm. joxee dara mu détourné ko alors qu'au préalable su fekkee ne nag danga ngaa former citoyen politique bu nite. Mhm. bis bu ñëwee ba toog ci responsabilité fu muy waxee ak fu muy jëflanteeg moroomam daf koy def ci cadre nit ak ci cadre loo xam ne nii dafay jox cër moroomam loolu nag moom moom moo manqué aussi ci ci espace politique bu Sénégal jërëjëf docteur Abdou Khadre ko ñu ngi lay gërëm bu baax amoon mbégte waxtaan ak yow tey euh, ci woppi askan wi nga xam ne ñun ñëpp la ànd dal suñu kaw yàlla na yàlla gindi ñu jiite gindi ñu ñun itam ba ñu mun cee indi saafara ndax euh, bu wéyee nii du baax ci génération yii ñëw jërëjëf jëfati